dégg naa démb premier ministre Ousmane Sonko di ma ne nañu ñëw ñu def débat dama bëgg dama bëgg xam naa ni xam naa ni daf maa namm xam naa loolu mais dama bëgg maa moom ñu def travaux pratiques travaux pratiques li muy tekki mooy département bu ñu dem ñu daje fa waxtaan ci département bi bu boobaa mën naa koo wax li xew ci département bi lañ fa def wax ko li des ak li des nan lañ ko war a defee ñaata moo ko war a def ak ci ban diir lañ koy defee defe naa ni débat boobu moom moo gën a yitteel askan wi mu doon un débat de proximité bu ñu ñëwee fii war nañ fee mën a wax problème mu sécurité fi ngeen féete bu ñu ñëwee fii war nañ fa wax problème mu ndox xam nañ fii suuf si dafa xaw a dëgër pour nga alimenter ko jafe na mën nañ ko waxtaanee fii bu ñu ñëwee fii mën nañu waxtaanee waxi tali bu ñu ñëwee fii bu ñu ñëwee fii war nañ fi mën a wax nag problème mu immigration irrégulière ma ciy profité di jaale di jaale ñii nga xam ni ñu ngi jóge ci localité bi ñu wàññi ci juróom-ñetti fukki xale ak juróom te nee nañu am nañu des mais juróom-ñetti fukki yooyu ak juróom ñooñu ñëpp fii lañu bàyyeekoo. ñoom ñëpp gis nañu seeni i néew fii lañ leen denc walla ñu denc leen feneen ñu ngi jaale seen njaboot loolu nag ñi waxoon bu ñu ñëwee ñaari weer dinañ faj soxla yi xale yi xaar ñeenti weer gisuñu leen moo leen dugal ci lii yëpp ma xam ni kon yéen da ngeen d'accord ngeen ni juumoon ngeen d'accord ngeen ni il faut que ñu soppi affaire bi il faut que ñu jooyanti ko et incha allah dinañ ko ànd ak yéen jooyanti ko mais ñaan aussi vraiment ah, di ñaan responsable politique yëpp dañoo nekk ci campagne électorale mais dañoo nekk Sénégal bokk ndey ak baay nañu moytu wax ju yàq nañu moytu jëf ju yàq Sénégal dañoo sonn jàmm moo fi xaj ñu ñëpp ay mbokk lañu loolu moo tax coalition bi ñu yor muy coalition jàmm ak njariñ di condamner toute forme de violence verbale comme physique fii koo fi gaañ di ko seeti koo fi gaañ di ko massawu ji koo fi rey di ko jaale ji noonu la Sénégal bindoo kon nañu moytu loolu moo tax sunu coalition ñu tuddee ko jàmm jàmm ju mot sëkk waaye nag jàmm dafa war a ànd ak njariñ su àndul ak njariñ jàmm ja amul njariñ jàmm ja du ko kenn du ko soxla waaye it boo amee njariñ te amoo jàmm mën nañu wax ni loolu it problème la